xeetu mais ànd ak léeg-léeg nag am ngi di tàng lèvres yi mooy tuñu yi ñaari lèvres yi di di metti léeg booy saw muy tàng léeg mu lakk léeg-léeg mu xasan léeg-léeg yi xaw a mel lu xonk لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a am mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp ñaan yàlla dool dal dool jàmm si réew mi ñu ngi nuy njiitu kër gi aj bo andi ñaan ñaan tey dañ ñëw si euh, vaginite muy inflammation du vagin mooy jigéen yi nga xam ni seen kanam dafay tàng di lakk ñu koy def ba ci euh, mu nekk tawat boo xamante nag lu doy waar la mais bari na ñoo xamante ni li leen si gën a yóbbu euh, mooy flore vaginale bu déséquilibré xam nga dañuy wax ni raxas sa kanam baax na des fois mais dëkkee di ko raxas toujours aussi baaxul ndax bu yàggee dafay dem ba flore boobu dafay déséquilibré dafay dañ te flore bi daf lay daan protéger si yu bëri yenn xeetu infection yi kon kanam kenn ko dëkkee di raxas guddi ak bëccëg day wax nañu sax le vagin se nettoie seul moom mooy raxas boppam mooy setal boppam kon loolu lu mat a mat a a xam la set bu yaram bi setee rek hmm, sa kanam set donc parce que saa yu kanam amee jafe-jafe rek la koy indil problème sa yaram lay jógee kon loolu mat na mat na mat na mat na xam euh, lii nag indi jafe-jafe bi léeg-léeg am na xeetu bactérie bu ñuy wax euh, hémophilus am na colibacille aussi bi nga xam ni dinañ jugee si cabinet yi léeg-léeg moo tax ñuy tere jigéen buy raxasu di jëlee si ginnaaw di jëm si kanam ndax loolu boo ko defee infection dafay daal di daal di yomb. aussi nekk na xeetu microbe boo xamante ni mën na modifier euh, kanam googu mën na ko soppi bu indi si ay xeetu microbe ay ay ay lakk-lakk yooyu. trichomonas dina jóge si sëy infection la boo xam ne mën nga sëy mu mu jee sëy dal la moom it nay indi vaginite boobu trichomonas boobu baaxul aussi. leneen li mooy herpès génital feebaru herpès boo ko amee aussi loolu daf lay yomb. Hmm? de même que euh, li ñuy wax euh, lu ñuy HPV muy papillomavirus humain boobu boo ko amee. day indi jafe-jafe yooyu kon loolu mooy xeetu mais ànd ak léeg-léeg nag am gi di tàng lèvre yi mooy tuñu yi ñaari lèvre yi di di metti léeg booy saw muy tàng léeg mu lakk léeg-léeg mu xasan léeg-léeg yi xaw a mel lu xonk nay ànd ak mandarga yooyu kon loolu jar na bàyyi bàyyi xel bu baax am na nag yeneen signes yoo xam ne ay facteur ay facteur favorisant la comme jigéen yi xam ne dañ toll si ménopause nga xam ne sa taux oestrogène dafay wàcc xeetu infection boobu ñu wàcc dina la yëpp ñi jël pilule aussi ak antibiotique dinañ leen exposé si xeetu infection boobu daf leen di yomb ñi nga xam ne allergie daf leen yàpp aussi ñuy jël ndox bu xaw a kii tuuti rek seetu bu baax mën na leen xeetu jafe-jafe jafe-jafe yooyu hmm? kon loolu lu mat a lu mat a lu mat a xam la ñuy ëmb aussi ñi nga xam ne dañoo nekk en état de nga xam ni candidat applicant daf leen yàpp xeetu infection yi aussi da leen di faral di di dal kon loolu mooy vaginite muy inflammation vagin boobu muy kanamu jigéen jooju solution yi nag ñaar benn bi mooy nga wut euh, boo amee limon da ngay jël tolloog litre ndox nga ñett doomu limon nga payal ko di ko raxas kanam suba ngoon boobu benn solution la soo amul limon bi te am vinaigre blanc bi muy vinaigre bu weex bi aussi boo ko boolee ndox di ko raxasoo aussi lu baax la ñetti ku da ngay am solo la lu baax a baax baax la daf lay daal garab yi leen nag mooy reenu ngigis ak reenu salaan bu dee ñetti reen nga baaxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll gaas saa yoo lekk daf lay si xeetu infection boobu ñëw si question ku njëkki neen daal moom bëtam mooy xasan muy laaj solution sel xobu solom solom sa loxo ba mu nga baaxal ko ba mu baax nga sëgg suurus ba xool si ba bëti ñax nga denc ko di ko sëlmoo si kàttan yàlla daf lay dimbali si loolu. ñaareelu question bi ñuy jeexale kii daal nee na dafa ubbi dafa gént ubbi bunt moom xamul buntu néeg bu xamu ko miinu ko kooku dañ lay woon ni say ñaan yàlla dana ko nangu. tey vœux seront exaucés exaucés ñeen tàggu fii leen jox rendez-vous seen émission gërëm jërëjëf. boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenté une gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ramener éjaculation précoce moo leen sonal wala de am faiblesse sexuelle madame de nous néo Nous bëgg ci un traitement définitif. wala sax dañu am problème azospermie manam sen man yiwu dafa woyof sen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax goor ñi nga xam dañu yor ay awra yu gatt ñu bëgg ko yok am nañ ci pomade bu hyper efficace am nañ aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax si ci jigéen ñi góor ñi utiliser am nañ aussi un traitement hyper efficace un traitement définitif contre ndoxum siti wala sax ñi nga xam ne mi yaram Fay dafay xasan wala sax euh, mu jural une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam pratiquement ndoxum siti bi moo koy causé amener un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace avons aussi un traitement hyper efficace contre l'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt dafay waral aussi néew kattan bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la perturbation des règles dans l'intérêt la tere am aussi un traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé euh, bi nga xam ne day waral constipation ak euh, biir buy kurkuri lépp loo ci mën a am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïde bi daf koy saafara et cent pour cent bio cent naturel effet secondaire képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن